أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci fadlul ilmi wal ulama ngëneelu xam-xam sàkku xam-xam ak ngëneelu ormaal boroom xam-xam yi xam-xam cëru yàlla la alimun xakim yàlla moo yeyoo xam-xam moo ko moom ak xikma moo koy yekkeewal ku ko soob waxit ni innama yaxsha allah min ibaadihi al ulama ñi gën a ragal yàlla ci jaamam yi moo di boroom xam-xam yi waxin ni wa ma utiitum min al ilmi illa qalila joxuma leen ci xam-xam lu dul toq ba laxtaan kon fa tabaraka allahu xam-xam boobu nag yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam taallamu al ilma fa inna taallumuhu la yaxasha wa talabuhu ibaada wa mudaakaratuhu tasbiix wal baxtu anhu jihaad wa taalimuhu liman laa yaclamuhu sadaqa wa badluhu li ahlihi qurbatun li annahu macaalimu alxalaal walxaraam wa manaaru subuli ahli aljanna yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam na ngeen sàkku xam-xam jàng ko nee na nekk na ci sàkku xam-xam ragal yàlla ngi ci sàkku ko dox ay jéego pour wuti ko nee na jaamu yàlla la da nga ci am tuyaaba lañ la jàngal nga di ko nafar yaa ngi mel na kuy wax subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar nee na gëstu xam-xam di ci xuus ci biir téere yi nee na jihaad la jàngal ku xamul woon nga am loo ko yekkewal ci alquran ak xam-xam ne daa am yoolu sarax wesaare ko ci sa biir njaboot ba ñu xàmmee lu dagan ak lu xaraam ne mi ngi mel tabarakallahu ngay leeral yoonu dugg ajjana kon mbokk yi fa tabarakallahu ku ci nekk na defaat góorgóorlu ci boppam loo xamoon nga sax ci di ko nafar ndax du la rëcc loo xamul woon nga góorgóorlu sàkk ko sàkkul ko koo xamul am ci tuyaaba sàkkul ko it sa njaboot yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam la an taxduwa fa taallama ayatan min alquran xayrun laka min an tusalliya miata rakaa nee na nga xëy suba jàngale benn aaya alquran sa ko taalibe bi sal sa soxna wala sa njaboot nee na moo gën nga julli téeméeri rakka benn aaya alquran nga saka ku mënul woon loola mu mën ko nee na moo gën nga taxaw téeméeri rakk di jullee ko sëlmal wala an taxduwa fa tuallima baban min al ilmi umila bihi aw lam yumal bihi xayrun laka min an tusalliya alf rakaa nee na nga xëy suba ubbi téere bi jàngale benn bunt ci xam-xam benn buntu njàpp wala laab wala tiim wala dind sobe wala sangu set nga jàngal ka kan ko jàngal moo xam jëfe na ko moo xam jëfewu ko ne loolu moo gën nga taxaw junne rakk bee dañu jàng alxuraan benn aaya moo gën nga taxaw ju téeméer rakk benn buntu xam-xam ci laxdara yi mbaa risaala mbaa fiq bi nee na moo gën nga taxaw junne rakk di ko julli ndax junne rakk yooyu si yow kott lay jariñ tabaarakallahu mais aaya boobu nga jàngale dana jariñ benn nit mu jàngal ko soxnaam jàngal ko njabootam jàngal ko ñeneen yar nga ñu bare ñoo yëgul benn buntu xam-xam jëlal buntu tiim mbaa njàpp nga jàngal ko benn nit benn nit mu jëfe ko jàngal ko soxnaam jàngal ko doomam jàngal ko dëkkandoom ko kenn xamul naka la toll moo tax bon salaa sallam ni loolu moo gën tabaarakallahu junne rak gi di ko julli mu ni ba tey ci xadis sallallahu alayhi wa sallam taallamu l ilma wa allimuhu nnaas taallamu lfaraida wa allimuhu nnaas allimuha nnaas taallamu lquran wa allimuhu nnaas fa inimru maxbuut wal ilmu sa yanqabidu wa tadharu lfitan xata yaxtalifa ithnaani fi faridatin fala yajidaani axadan yafsulu baynahuma yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam na ngeen jàng xam-xam te jàngal ko nit ñi jàng xam-xam dëgg bala mooy jariñ la nga jàng nga mën ko yekkeewal keneen nee na jàng leen te jàngal ko nit ñi kon ku xas ba jàng tudd boroom xam-xam amatuloo droit nëbb li nga jàng nee danga koy jàng jàngal ko nit ñi na ngeen jàng xam-xamu miras xam-xamu ndono te ngeen jàngal ko nit ñi nee na ngeen jàng alquran te ngeen jàngal ko nit ñi mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam nit la te dafay wuy ji boromam mu ni xam-xam it day delluwaat dem yoonam su xam-xam demee fitna daal di feeñ daa dem ba gis ñaari nit am problème ci mbirum miraas du ñu am kenn ku leen atte te tey ji am na ci àdduna bi ci réew mii bés bu nekk tabaarakallahu problème mu miraas taxaw yépp a ngi mujjee tribunal tabaarakallahu ci atte atte tubaab ya kon nee nañu jàng xam-xam jàngal ko nit ñi surtout xam-xamu miraas miraas képp ku ne am njaboot war nga mën miraas war ka mën jàngal sa njaboot balaa ëllëg di am nga wuy ji sa borom njaboot gi jaxasoo di xëccoo di reyante di noonoo ba mujj tribunal ci lu ko jarul kon loolu ku ne war na ko xam eggul foofu compliqué wul jafewul dañu ko war a jàng possédé ko tabaarakallahu loolu mooy li am solo yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bis maa lii ara ulamaakum yazhabuun ma ngi jano boroom xam-xam yaa ngi dem wa juhaalukum laa yataallamuun ñi xamul xamuñu dara jànguñu tabaarakallahu nee na ñoo ñu taxaw nag di woote di yeete nan la ñuy wootee nañu yeete fa taallamu nee na na ngeen jàng qabla an yurfa al ilm balaa xam-xam di delluwaat place am nee na xam-xam nan lay delloo place am fa inna rafa al ilmi mawtu ulamaa yi xam-xam buy dellu mooy génn àdduna borom xam-xam yi su borom xam-xam yi day génn àdduna di dee ah la hawla wala quwwata illa billah xam-xam yi dem da ngeen dégg si wàllu tubaab ñu naan un savant qui meurt est une bibliothèque qui brûle borom xam-xam bu génn àdduna bibliothèque la bu lakk ndax li mu xam ci alquran xam ko ci diine xam ko ci téere yi xam ko ci xikma xëy suba ñu dem te jox ko kenn la hawla wala quwwata illa billah ko armoire téere la bu xëy suba lakk kon doomu aadama yi ñoo war jage borom xam-xam yi xeeñcu leen tabaarakallahu bala ñu am seen dënn ñu taataan ko jël ko ñoom tamit yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna allaha laa yaqbidu alilma intizaan yantazicuhu min annaas walakin yaqbidu alilma biqabdi alulama xatta ida lam yubqi caaliman ittaxada annaasu ru'usan juhaalan fa su'iluu fa aftaw bi gayri ilmin fa adallu wa dallu buxaari ak muslim ko solo sang bu tedd bi ne yàlla su dee rocc xam-xam du ñëw rek ni fa xët dem déedéet dafay rocc boroom xam-xam yi benn par benn ñanu yaakaaroon jafandu si ñoom ñu di leeral adduna bi yàlla di jël benn par benn ba boroom xam-xam du fi deseti nit ñi gestu seet ñu xamul dara jiital leen laaj leen masala masala boobu xamuloo ci dara mënoo ci dara wante rëy dana tax nga tontu la ngay tontu teguloo ko ci xam-xam réer la nit ñi sànq sa bopp loolu tey mooy muskila adduna bi ci réew yu bare bare yan na Sénégal rëcc ca loolu ndax macha allah ñi fi des ci ay mag ak ndaw yan na yàlla gëñu leen sarax ñu nekk di taaral diine ji di leeral adduna bi ak seen xam-xam ak seen mbaax yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam la mawtu qabilatin aysar min mawti aalimin benn dëkk boo xam ni ñi ko dëkke jànguñu xamuñu mënuñu xëy dëkk ba yépp deewandoo nee na moo ëpp jàmm deewu benn boroom xam-xam benn dëkk ay doomu aadama dëkki ko di xëy ak di gont mi ñi ko dëkk yëpp ay jaahil lañu xamuñu dara xëy suba dëkk ba am inondation mbaa marditaani musiba am ñépp deewandoo ci benn bëccëg ne lu mu metti metti moo ëpp jàmm deewu benn boroom xam-xam kon xam nga ni kon mesure bi yaatu na rëy na yàlla ni ci alquran yarfa llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat yàlla nee na doomu aadama yi ñi gëm yàlla ku nekk ay degré la wante nag daraja yi gën a féete kaw boroom xam-xam yi ñoo ko toogee yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam xudur majlisi aalim afdal min salaati alfi raka wa ciyaadati alfi marid wa shuhuudi alfi janaza qila ya rasul allah ومن قراءة القرآن فقال صلى الله عليه وسلم هل ينفع القرآن إلا بالعلم نينا توك si jataayu borom xam-xam muy jàngale ngay taataan ne moo gën jul julli junne rakka nee na moo gën seeti junne malaat yu feebar ak la ca nekk ci tuyaaba nee na moo gën teewi junne dëj jaale leen ak la ca nekk ci tuyaaba saxaaba yi ne ko yaa rasulallah ndax moo gën jàng alquran mu ne ndax alquran dana jariñ su fa xam-xam nekkul kon alquran bi dartam dartam mooy jàng mooy xam su fa xam-xam nekkul doo sax xam ni laa yamassuhu illa almutaharun doo xam ni waroo ko téye te amuloo njàpp kon baas boobu le nga xam ni da nga war téye alquran ànd ak njàpp ànd ak ormal ko xam-xama sa jiitu mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam إن الله سبحانه وملائكته وأهل السماوات وأرضه حتى النمل في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير نينا يلا سبحانه وتعالى سي جمم اك ملائكي اك نيون اسمان اك نيون سوف با سي خورندون سي بير باخ با مو نيك ba ci jën ci biir dex gi ak géej nee na ñoo ngi àndal di ñaanal yàlla yiw kiy jàngale xam-xam ah kooku rëy na de kon borom xam-xam yi ñépp leen war a ñaanal yàlla yokk seen taxawaay tabaarakallahu may leen gudd fan ñu des di leeral réewu Sénégal nag dafa mel ne xamewuñu borom xam-xam ñépp ñu ngi tudd sëriñ te si biir sëriñ si ñee jàngale yi ngi si nekk borom alxuraan yaa ngi si nekk ak ñu tudd charlatan yi Sénégal mënuñu xàmme sëriñ borom xam-xam ak charlatan charlatan mooy dóorkatu marto rek waaw fu mu la fekk toj sa bopp naan sa yóor yulli sa poos bàyyi si diggu bedd mi il est temps que ñu xàmme jàngalekat yi borom xam-xam yi cheikhul murabbi yi ñee yar doomu aadama yi ak charlatan yi ñi nga xamante ni amuluñu la benn njariñ xool si pettaaw xool ci tabaarakallaaw ci ndox xool sa loxo liir si sa conscience am nu ñu la naxe bu toj sa bopp naan sa yóor moom la sëriñ Babacar radiyallahu anhu na ngeen xàmmee ñaari cër yi borom martaba ak borom martaba moom mu jëkk wax borom marto bi ne borom martaba ku tedd fa yàlla la ku yàlla jox ay makaarimu axlaaq la ku ko jage mu walla la am mbaaxam nee na borom marto ba nag kaabaab gu rëy la yore ku ko jage mu toj sa bopp naan sa yóor yulli sa poos teg la si diggu bedd mi kon tabarakallah jot nañu xàmme ñii jàngale borom xam-xam yi ak borom baax yi ak gaa yooyu le yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna taadima al ulama yazidu al iman fonk borom xam-xam jox leen seen cër ak ormal dafa dolli liimaan dafa dolli cër borom xam-xam kenn du ko sàllalu gis nga boobu la yar nañu ko tàmbalee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bu ne nga janoog doomu aadama yi barke muhammad muhammad nee na muhammad ma ni muhammad mel na ku tudd muhammad bu bu dend ak yow muhammad sayiduna muhammad ngay wax teg ci sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na mandarga nay dëkk nay mooy nga dégg fu ñu tuddee turam te tegoo ci sallallahu alayhi wa sallam nañeen yar suñu bopp ci loolu képp kuy wax di tudd sang bu tedd bi nga jiital sayidina ni sayidina muhammad teg ci sallallahu alayhi wa sallam sa sëriñ soo ko dee tudd nga tudd sëriñ bi al cheikh wala al ustaas wala al cheikh al muhtaram wala al fadil wala al imam wante tur sëriñ bi na la neex nga koy tuddee tabarakallahu abdou aziz mawdo mbay xalifa rawaan yu kenn xamul yii de mooy ñàkk teggin ñoo xamante ni yàlla dafa ne ormal fa tabarakallahu ak tur saxaaba yi lu jar a bàyyi xel yonent bi de sala alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala dana sëpp jaam yi nan ya malaikati wa sukkaan samawati wa anzuru ila ibadi qad ijtamacuu ila cabdin min ibadi yatlu calayhim ayati wa yaskuruhum alaai ushidukum anni qad gafartu lahum bépp barab boo xamante ni moo xam jàkka la moo xam tànt la moo xam biir sàll la moo xam daara ja la fu waay toog mbooloo ànd ak moom mu leen di jàngal ñu di ko déglu nee na yàlla woote ni yéen samay malaayika yi yi nekk asamaan ak ñu dëkk suuf xool leen sama jàmbee gaañaa ngi ko wër mu leen di jàngal samay kéemaan yi di leen wax man maay kan ak sama kàttan gi yéen samay malaayika yi maa ngi leen di seedaloo man yàlla ni ñooñ jéggal naa leen moom ak ñu tooga moom yépp yal nañu yàlla boole ca ñamuy xool batu yërmande sang ñu ma laanu sutura fi diini wa dunya wal axira yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarxam saxirana wa yaarif li aalimina xaqa nee na képp koo xam ni ormaaloo mag bokkoo ci man mag yàllaa ka jox cër mag du yàlla mi jege na yàlla ku jege yàlla nag tabaarakallahu yàgg na ak yàlla mag du yàlla mi yàgg na ak yàlla ku yàgg yàlla nag da nga koy bàyyi xel yow mi egseegul ci âge boobule ndaw bu amagul sikkim bu weex amaguloo karaw gu weex da ngay ormal ku yàlla jox karaw gu weex te mu mag la ndaw du dal ci kaw mag xale yi nañu jël boobule leçon ndaw du dal ci kaw mag mag am na lu mu la rawe am na lu mu la ëppalee am na lu mu la jiitoo kon kooku da nga war ormal bu dal ci kawam ndax su dalee sa kaw nga gaañu su dalee si kawam tabarakallahu gaañu nee na képp koo xamante ni yow mag nga te amuloo yërmande ci ndaw yi bokkoo ci man kon l'islam équilibre bi mooy mag tabarakallahu dañ koy ormal mag yërëm ndaw su ndaw joxee cër mag mag yërëm ndaw rek insha allah taala yëpp dafay maase wa yaarif li aalimina xaqahu ak ñi nga xamante ni ah mënuñu jox cër borom xam-xam képp ku dul jox borom xam-xam cër sallallahu alayhi wasallam nee na bokkoo ci man foo jëm xamal nee na giñ naa ci màggu yàlla subhanahu wa taala la in shiita la uqsimanna lakum anna ahaba ibada allahi taala ila allah alladina yuhabibuna allaha ila ibadihi wa yuhabibuna ibada allahi ila allahi wa yamshuuna ala al ardi binnasiha nee na giñ naa ci màggu yàlla tabaraka wa taala ñi yàlla gën a sopp ci jaamam yi mooy ñii fexe ba yàlla sopp jaam yi ak ñii fexe ba jaam yi tabaarakallaa am cër ca yàlla te mooy borom xam-xam yi ñoo nekk si diggante bi di ñaanal jaam yi naan yàlla xooleen bu tu yërmale yàlla comprendre leen yàlla bal leen yàlla sutural leen naan yéen tamit jàng leen xam leen yàlla jaamu leen yàlla màggal leen yàlla kañ leen yàlla nee na ñooñu tabaarakallaahu ak wër ci kaw suuf nag di laayu biir ku xamoon nga ni ko gënal xam jàppal ci li nga nekk te bul bàyyi ku réeroon nga ni ko ah du nii de delul ci yoon wi diggante boobu tabaarakallahu nee na ñooñu ñoo gën ci yàlla gëg ci kaw suuf xayru nnaas wa xayru man yamshi ala wajhi al ardi al muallimuun fa innahum kullama xaliqa diini jaddaduhu nee na ñi gën ci kaw suuf mooy jàngalekat boroom xam-xam yi su diine ji ràppee ñoo koy yeesal ñoom yàlla jamono ju nekk dana feeñal ñoo xamante ni ñooy téye téeréem bi di ko wesaare tabaarakallahu ñi génnoon ci sàppe yi murtadoon mbaa gëmuñu ñu delloo si leen dogale ndaw yi xale yi teel dugal seen dënn leeru alquran ak gëm yàlla tabaarakallahu ba ñu tegu ci siraatal mustaqim mbokk yu tedd yi yan nañu yàlla xiir ci boppam dëpp nañu alquran ubbi sunu ay nopp yii ak sunu xol di taataan benn saxaaba bu tedd radiallahu anhu nee na soo génnoon sa kër dem ci benn mbedd di dox dégg yélimaan di waxtaan mbaa benn tànt bu ñuy conférence fekk yow yaa ngi jóge sa kër taq répp ak bàkkaar ak ñawteef ba tiit nga toll ca mbedd ma dégg ke jàngale naan qaala allahu qaala rasulullahi yàlla nee na su ngeen tuubee mu bal leen su ngeen jaamoo yàlla mu teg leen siraatal mustaqim nga tiit sa ay bàkkaar dellu sa kër daal di jàpp julli ñaari rakk nee na soo njaaloo woon sàcc def yi gën a bon yàlla baal la say bàkkaar kon nag génn dem ci géewu boroom xam-xam yi dem ci tànt yi dem ci juma yi dem ci conférence yi dem ci tabarakallahu jàng yi ak màggal yi ala kulli xaal daa fa jële loo xamante ni dana la jële si lëndëm insha allah dugal la ci leer yal nañu yàlla may dégg ak topp allahumma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama u saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته